mbokk xarit yi yéen ñu ñuy seetaan ci seen télévision Mindiss TV seen télévision Mindiss TV mu ngi leen di dalal ak jàmm ci seen émission spéciale yi nga xamante ne tey dañ ko jagleel CAN bi nga xamante ci lañ génn mu amee woon fële ca Kër ba tax na ci kaw loolu nag seen télévision Mindiss TV ànd ceeg ay borom xam-xam ñi nga xamante ne seen xam-xam dafa wàcc dafa màcc ci wàllum fubal yàgg nañ ci trop def ay at ñu ngi présenté ku ci mel ni coach Ismaïla Niane euh, nekk dëkk fële ci Escale. ak ku ñu naan coach euh, Ousmane kebe nekk fële ne ca Escale donc coach Ousmane euh, ñu bëggoon xam rek exactement ban bilan nga mën a def ci effort yi nga xamante Lions yi fournir nañ ko durant toute la CAN yow ban bilan nga ci mën a def boo xamante ni de au moins c'est positif quoi. voilà asalaamaaleykum maa ngi leen di waa ministre yi di am mbégte ci seen teewaay bi nii lii euh, lu am solo parce que lii moom defe naa la première fois ma gis genre affaire bi wala les anciens footballeurs yooyu district bi moom moo ko fi def pour vraiment di am jàngat boo xamante ne aussi mun naa xam ne bilan bu positif lañ uh, def ci suñu coupe d'Afrique bi ñu demoon parce vraiment gars uh, yi ci coupe d'Afrique bi condition yi baaxoon na logement yi ñu logé bu ñu on était bien logé vraiment te ministre bi on le remercie encore fois le ministre Matar Ba ñu ngi koy remercier bu baax ci yóbbu bu ñu yóbbu parce vraiment ñu musuñ ko woon xalaat donc bañ jël fii des anciens footballeurs ñu yóbbu leen ba Coupe d'Afrique loolu dafa nekk loo xamante ne mënuñ wax nii sans terminer sans wax ko donc mu des fi ay yeneen génération ay internationaux ak yooyu yëpp ñu ngi fii au niveau de Fatick ak ay anciens yu tax ñuy wax ñooñu dañuy ñaan yàlla beneen yoon aussi ñooñu ñëpp ñu mën a ànd loolu ñu def parce que ñun nekkul ne dañuy dem rek toog nii du xoole dañuy dem pour aussi yeneen yeneen affaire parce que man damay yëngu ci petite catégorie kii moom mooy moom Ismaïla Niane bi moom xam ngeen ko moom mooy yoro équipe de chef bi mun nañ fa am yoo xamante ne du nekk Coupe d'Afrique bi kese donc lépp ci biir Coupe d'Afrique bi donc vraiment li may wax ci union yi mooy vraiment def nañ benn parcours bu baax boo xamante ne vraiment c'est important Aliou Cissé ñefe na ko ak booyam bi vraiment man gis naa ci satisfaction xanaa kañ dañuy redoubler defaraat defaraat defaraat bi nag léegi nag day xool ci loolu la mu mën a defaraat. waaw euh, euh, d'après ci li nga wax euh, lan nga jàpp ne exactement moom moo doxul ba tax Aliou Cissé waroon ko jël en compte te jëlu ko te loo xamante ne moo ko yóbbee tey defetam final bi nii lan nga ci gis lan moo doxul ba nga xamante ne waroon na ko jël en compte te jëlu ko. waaw ci suma gis-gis ci suma gis-gis mun nañu wax ne bon sélectionné na bon moom mooy entraîneur moom mooy yàggal mooy moom mooy def sélection. sélection bi xam nga nit ñi moom dañu am habitude rek di wax nañ sélection bi def baaxul suñu gañ sélection bi baaxul sélection bi def nañu mais pour man jël na ay joueurs yi nga am ñi ma amoon yaakaar peut-être kay dem nañ ba fin ba benn défaite lañ am ci début bi ñu dem ba ca fin ba ñu muy final bi ñu gañewaat def naa ne bon loolu mun nañu wax ne bilan bu baax la su baaxul aussi dañuy naan bon peut-être la mais euh, sélection bi mu def vraiment mun nañ wax ne sélection bu peut-être nag yàlla moo àndul ak ñun ca final ba rek mu nekk erreur boo xamante ne bon euh, moo ñu dal ca final ba daal kii il fallait ñu am ay attaquant yoo xam ne ñu tax ñuy wax ay attaquant yoo xam ne dañuy dugal lu mu jaxasoo jaxasoo yi dañ dugal attaquant yu mel noonu aussi moo tax il faut ñu di xoolaat ci biir yi nga yi nga xam dañ ci am ay attaquant yoo xam ne vraiment ay am koy dugal ci biir loolu tamit yoo xam ne vraiment am na fi aussi au Sénégal bon xanaa expérience nécessaire bi nga xam ne moom la coach war a am pour téyewaat équipe bi fii ba at ay at. Euh, <coughs> jaajëf leen remercier ci émission bi di jaajëfal aussi ñëpp ñu demoon seetaan yi Coupe d'Afrique des si jiital le ministre Matar Ba le DAGE et délégation bi ñu nekkaloon tam nañ ci dem bu rafet. yegg ñu recevoir ñu réception bu rafet ñu seetaan suñu Coupe d'Afrique dundu ko ak Lions yi dund ko ak Sénégalais yi nekkoon foofu mu doon expérience bi am solo pour am solo pour tout le monde ñu ngi bis aussi ak jàmm amul fait divers amul dara Lions yi nag dafa un parcours vraiment honorable sincèrement euh, on était 24 équipes ci 24 nga dem ba finale yàlla def ñu gagné la ci finaal ba et et puis ban gañe aussi match boo xam ne pratiquement ñu ngi encaissé deuxième minute à la deuxième minute de jeu tout le match durant pratiquement on l'a dominé mais malheureusement on n'a pas su concrétiser nos occasions yi ñu am nos balles arrêtées et conso loolu moo tax ñu gagné maintenant pour revenir à ta question est-ce que Aliou Cissé am na expérience pour téye équipe moi j'ai dit oui yow boo xool bu ñu xoolee parcours Aliou Cissé depuis qu'il est là avec le Sénégal et c'est le meilleur parcours amul entraîneur bi ko muy gën parcours booy wax peut-être Bruno Metsu ngay wax te pratiquement il a égalé Bruno Metsu Bruno lan la def Bruno yóbbu nañu Coupe d'Afrique ñu dem en finale Aliou yóbbu nañu deux fois Coupe d'Afrique ba li ñu yem premier tour bi ñu dem en finale Aliou yóbbu nañu Coupe du monde Bruno yóbbu nañu coupe du monde bien que coupe du monde Bruno on est allé jusqu'en quart. maintenant la on s'est arrêté en coupe du monde à, euh, au match de premier tour mais quand même boo xoolee ses résultats ce qu'il a fait depuis qu'il est là je dis que c'est grande satisfaction expérience maintenant ça vient chaque jour que Dieu fait les campagnes yi muy dem expérience bi foofu lay gën a ñëwee il a fait campagnes avec le Sénégal et maintenant ñun ñu ngi espérer ne bu defaatee beneen campagne de coupe d'Afrique et beneen campagne de coupe du monde ça sera la bonne moom moo tax aussi bàyyi ko fi am solo il a gagné de l'expérience en faisant deux coupes d'Afrique et une coupe du monde il gagnera beaucoup plus d'expérience maintenant s'il en fait deux autres donc maintenant je pense que vraiment il a de l'expérience nit ñi ñooy wax nii rek mais kenn upp ko fi expérience il a été joueur professionnel Il a été capitaine de cette équipe nationale. Il est entraîneur depuis combien d'années C'est sûr qu'il s'est formé. Le temps de la formation, am solo. Il s'est formé, il a ses diplômes, maintenant il vient entraîner. C'est comme moi-même, c'est comme on autre, c'est comme on autre. Il est même beaucoup plus expérimenté que moi. Que moi, je suis venu à l'équipe nationale. Donc il a de l'expérience. Sénégalais, ils ont eu l'expérience, il a fait ses résultats. laissons le travail donc je vois waaw bu weesoo loolu gis nañ ne Algérie dóor Sénégal ci premier tour yi match de poule yi Algérie ñëwaat final dóoraat Sénégal ndax ñun Sénégal équipe bi dafa am benn tactique nécessaire boo xamante ne moom la war a joué Algérie wala Algérie da ko mën doon bête noire am yow lan nga xalaat ci loolu exactement. bon benn affaire am na ko bête noire bi nga wax peut-être am na ci. parce que rarement la ñuy Algérie en compétition match de compétition foofu war nañ ko xoolaat al Algérie aussi si Coupe d'Afrique bi daf ñu poser ay problème ay équation muy premier match ñëw nañ dugal ñu maintenant ñun pour ñu wekk bi boobu muy problème donc ils ont marqué ils ont mis le bloc bas na comment ñun ñu ñuy def nag ba contourner ce bloc bas ba marqué maintenant c'est notre c'était notre problème au premier match donc c'était presque équilibré lors du premier match ñu ñëwaat Algérie ce qu'il a produit au premier match moom la ñëwaat produire au deuxième yàlla def nag mu teel dugal ci biir teel a dugal boobu aussi moom aussi mu delluwaat ndam defoon premier match yi mu jéem ko répété waat heureusement il l'a réussi mais malheureusement pour nous on l'a pas réussi comment en contournant ce bloc on l'a fait contre l'Algérie on a essayé essayé maintenant pour contourner le bloc de l'Algérie on a joué avec Gana et, et en une deux dans l'axe central. Au lieu maintenant de contourner passer par l'axe, comme on l'a fait avec euh, l'Algérie, avec la Tunisie, on a essayé de passer par l'axe central. Et ça a marché avec le 1-2 de Ghana et de, de contre l'Algérie, on n'a pas su le faire. Le reste, moi, c'est nos problèmes. Mais si on, on faisait, on peut ces combinaisons, répéter, répéter, répéter, peut-être n'aurons pas. Mais malheureusement, ça n'a pas réussi. Et d'un te xam ne peut-être yàllaa ko tudde noonu. amuñu réussite. mais on a manqué des occasions encore voilà on nous a gagné. merci coach Ismaïla Niane merci coach euh, Seydou Kébé. maa ngi dalal ki nga xamante ne ne mooy coach Ousmane Diouf dëkk fii ci Pëlga ak coach euh, Omar Faye nekk fee ca Lamtooro ñu nekk ay joueurs yu yàgg ñu am xam-xam ci football ba tax na ci kaw loolu coach Omar malay laaj exactement yow lan nga xalaat ci. waaw Mbaye Diagne Mbaye Diagne et Mbaye Niang est-ce que ñoom exactement am nañ seen place ci équipe bi. am nañ seen place ci équipe bi parce euh, que li tax Aliou Cissé daal di leen am nañ fa place ba pare ils ont fait le flot l'autre il l'a fait à Rennes l'autre a eu a eu moom moo leen jël. et le sélectionneur national 23 bu loolu daal mooy li nga xamante ne moom coach Ousmane la nga xalaat ci loolu noonu yow sa point de vue daal. bon avant chose maa ngi ministre bi ministre bi di remercier aussi avant toute chose le ministre Matar Wade de nous avoir permis d'assister mais c'était pas évident parce qu'on pouvait prendre d'autres. Bon, vous pouvez le central. Sondage comme ñoom comme ñoom. bon pour rebondir sa question bi nga wax. entre Mbaye Ndiaye ak Mbaye Niang bon moi je me di que avant toute chose Aliou comme ko grand Mor waxee moom lañ dénk suñu équipe donc moom bu demee parce que il avait le dem dugg si diaspora bi xool joueur yi pour mun a gën a mbay ak mbay jaañ mbay ñëw bu nekk dañuy wax mbay mbay ñëw mbay buñ ko saanee bi ñu demee Russie c'est preuve c'est vrai aussi le joueur il peut avoir des hauts et des bas pour ñu accepter euh, l'essentiel moo di moo il va faire le euh, de cette CAN moom il va tirer les leçons xool ndax il va les ñeneen ci tanière bien faat ñeneen mais ce qui est sûr et certain euh, li ñuy xaar ci attaquant moom moo nekk ñoo xamante ni kii marque bi nga fa marqué mais attente boobu nag sincèrement xaar nañ ko ci ñoom le dernier mot revient à Aliou. waaw ndax jarul kon mu utiwaat ay attaquant yu gën a compétent ñoo nga xam ne dañuy dugal comme ni ko équipe bi soxlaa. waaw comme Aliou il a répondu il sait ce qu'il attend parce que aussi euh, ñu ngi wax Aliou am na expérience Aliou mën na ko mën na ko mais tam aussi. l'expérience c'est la somme des erreurs. donc ci li mu jógee nii. dafay tax mu rebondiraat pour mu yegg fan. donc il a fait la lecture il va il va faire une analyse très forte de la situation donc il sera tenu de savoir est-ce que da leen di waay parce que ñoom tam aussi dañuy war a delluwaat seen championnat parce que aussi un jour on l'amène en équipe en fonction de sa de ses performances dans ses clubs. donc ñoom bu fekkee ne waroon nañ loo xamante ne nii doy na Aline pour mu indi leen. dama ne pas ñun l'essentiel moo di xamante ne nii dañuy représenté le Sénégal te Sénégal li ñuy xaar moom moo nekk li ñuy xaar ba léegi moo ñu jël ko def pense bi ñu war na leen a yi sas nañ leen bien vrai que indiwuñ mais li ñu leen defar ñi ñiy njël coupe daan na woon Algérie sax amu ko dëkkam. donc ñoom war nañoo xamante ne am nañ une dette envers le Sénégal te dette boobu nag leen rek war mën a fay mën a yëkkati coupe d'Afrique boobu Sénégal. waaw coach Omar ba tax na ci kaw loolu ban réaction nga am. ci euh, compétence u arbitrage bi bi nga xam ne moo am ci biir CAN ak avènement wu VAR bi nga xam ne tey dugg si na mu nekk révolution boo xam ne ci football yaakaaruñ ko woon tey yow lan la nga gis ci loolu est-ce que am na fi place wala amu fi place. VAR waaw VAR bi am na fi place parce que VAR bi dina tax nga xoolaat hmm. mais il y a que je remets en cause l'arbitrage qui a eu lieu lors de la finale entre le Sénégal et l'Algérie hmm. parce que il s'est avéré que. les les gosses ont joué contre le public algérien. et l'arbitre am na mag mu ngi doon wax nañu yéen ñetti adversaire ngeen am ñi ngeen di footballal arbitre bi ak public bi mais nous on a été victime de l'arbitrage par rapport à 32 fautes yoo xamante ne waa Algérie dañ ko doon def ñëpp di leen di gis bu remise en jeu amee nga daal di ramasseur bi jël bal bi daal di ko sànni joueur bi war a def remise en jeu bi joueur boobu du laal bal bi daf koy bàyyi mu dugaat ci biir terrain bi keneen di jël di ñëw di ko koy jox muy jël temps boo xamante ne 15 secondes dina fa def l'arbitre était présent devant ses faits et il n'a pas loolu remarqué nañ ko dans le jeu donc Sénégal gàcce ngaa la Sénégal li leen mun a waxal mooy def nañ lépp ba daal di dem final parce que 24 équipes la woon ñu daal di dem ba daal di dem final ba pare je remercie au passage le ministre des sports man si bi may commencé sax foofu laa waroon a commencé mais ma bref rek moom il a eu à être le meilleur ministre des sports de notre continent. parce que il a réussi pas mal de choses là où les gens ont échoué. lui il a réussi euh, monsieur monsieur Matar Ba honnêtement gàcce ngalaama. maa ngi koy féliciter de passage. c'est dire que nous avons joué contre l'arbitre. nous avons joué contre le gouvernement des des Maghérébiens. on a joué dans la douleur et on a eu à faire de très bonnes choses durant quatre-vingt-dix minutes. amoon nañ huit minutes de temps additionnel boo xamante ne kenn boolewul. loolu yëpp ci ci li ñuy perte si la bokk. Sénégal kenn amul lu mu leen di wax lu muy ñu dem a changé li ñu war a changé mooy comme li nga wax attaque bi il va falloir qu'il y ait des alternances parce que man am na ay appel de balle yoo xamante ne foofu ci biir final gisuma guna yi def ko ko ay appel en diversion kii laajee kii laajee fee loolu dañ koy war di gis ci football bi il va falloir que Aliou dal di am pédagogie pour di leen transmettre une manière de jouer voilà c' est ça. waaw coach Ousmane ñu bëggoon xam exactement manquement yi nga xam ne équipe bi am na ko c' est bien vrai que am na ay manquement manquement yoo xam ne équipe bi staff bi ak fédération war nañ mën a booloo combler ko pour maintenir daal équipe bi dans de bonnes conditions face à la qualification de la CAN bi nga xam ne moom la waajal nii yan manquement nga yoo xam ne équipe bi war na ko combler. bon manquement yi may wax rek moo di peut-être que Alioune ci man exemple contre l'Algérie à l'aller mm-hmm. on avait perdu Ghana et on voyait qu'il y avait pas quelqu'un boo xam ne fu ñëw pour son rôle parce que aussi il avait largement le temps pour pouvoir faire une bonne sélection bien vrai qu'il a fait une bonne sélection faire une la sélection c'est aller en finale mm-hmm. la coupe moom c'est parce que tam aussi on a, on a gagné. à On joue ça on, ouais, Mais le problème, moo di au niveau de l'attaque, c'était une attaque qui était là, statique. Loolu tam aussi il faut que ñu liggéeyaat parce que tam Mbaye qui est toujours devant la dafay le défenseur parce que un attaquant qui qui ne bouge pas le défenseur il dit alhamdoulilah donc il faut que ñu travaille devant l'attaque ensuite kon essayer encore de de de de plus scorer au niveau des buts parce que duñ laajte moo ndax football mais dañ ñaata ñaata il faut essayer qu'on qu'on travaille encore davantage devant les buts et qu'on mette beaucoup de buts pour permettre encore bu ñu boo soxloo championnat bi football nañ ko mais on n'a pas marqué beaucoup de buts ay 1 donc et ñun boo seetloo fi mu toll nii ossature bi ñu am au niveau international on n'a pas mieux ay ñoom Gana sama kii vient de signer au ah, PSG ça veut dire qu'on n'a pas de li ñuy def seen club yi Aliou na fexe ba nga xam ne mooy dina jël forme pour au moins qu'on puisse xam nga wane loo xamante ne nii nit ñi xamee nañ ko waaw dina laa ko loolu moo loolu ci biir football lañ nekk ci la ñuy waxtaan. seen xam-xam la màcc tamit. bu ñu weesoo ci kan bi ñu dugg ci biir région de Fatick. exactement ñu ngi wàcc nawetaan. championnat yaa ngi daw ñeen bu ñu bëggoon rek ngeen may ñu tuuti rek. ci préparation navétane yi na ngeen ko tëralee ak nan la fas yéene déroulé ren ak ASC yi bees dugg yi nan ngeen ko gisee. bon navétane Fatick moom en toute sincérité moi je vois que bon ñu ngi koy organisé activité de vacances la. mais léegi dafay dem ba day dépassé activité de vacances. ça veut dire que duñ ci période am. Mm-hmm. te boo seetloo léegi Fatick startups yoo xamante ne nii qui sont un un un un leader donc ils utilisent ces jours là donc ju ku mel ni jamono da koy porter préjudice parce que la plupart du temps dañuy joué ci moment boo xamante ni période de championnat la au moment où ñu ngi joué championnat du championnat là aussi ça fait défaut bon gars yi gën a a planifier les choses ba nga xamante ne nii duñ dugg ci championnat bi sinon à défaut de cela. ñu xool noo xamante ne nii ça va permettre nga xam ne ñuy championnat ñu bañ a dem football ci nawetaan yi parce que aussi on ne peut pas être au fur et au moins soit on joue le championnat ou bien on joue le ci loolu. bravo bi gën a ñaax xale yi rek ci liggéey parce que soo demee ba yore instance il bon ngay laajte parce que léegi instance fi nekk nii bon daa nekk mbir moo xamante ne xale yi mu leen neex lañ koy defe te am na ay nit ñoo xamante ne ñu ngi ci dëkk bi seen xam-xam màcc na ci règlement football les rouages et l' le football fatickois ñu gi nekk en progrès mais il souffre de cadre je veux dire il souffre de cadre parce que d' abord quand on dit une ville de football il faut qu'il y ait de grands dirigeants des dirigeants yoo xamante ne euh, c' est pas des amuñu ay appartenance parce que football amul loolu am na suñ benn mag dañu doon wax nañu euh, au-delà de l'adversité, le sport sert à unir les cœurs et les esprits yooyu dañ koy wax xale yi dañuy war di xam yooyu il va falloir aussi dans les ASC qu'on anime des conférences de presse des conférences je veux dire sur sur, le football et l'environnement des trucs comme ça di leen di ñaax affaire yi football ak liy xew ci football et tout parce que il est devenu un fait social donc euh, boo ko yoree ci instance yi rek da nga war a góorgóorlu en tant que teel a organiser ko jaarale par la voie normale soo leen gisul lu ngeen xamul ngeen dem seeti ay mag bu mel ni Sidi Touré lii il est là il vit jusqu'à présent les gens ne maîtrisent pas mieux que lui les règlements du football donc euh, c'était ça quoi voilà xale yi góorgóorlu waaw jël jërëjëf sama ñaari coach yi muy coach Ousmane Diouf ak coach Omar Paye mbokk yi comme yéen ko gisandoo ñu ngi woon ci seen télévision Mindiss TV dala leeloon tey ci seen biir émission édition spéciale bi nga xamante ne moom lañ jagleel euh, CAN 2019 bi ñu génn mu amee woon fee ci Égypte ca Caire ba tax na ci kaw loolu seen télévision Mindiss TV dalaloon fi tey ay ñoo xamante ni seen xam-xam dafa màcc ci wàllu football te ñu demoon Égypte teewee loolu ñu leen dalal ak jàmm di leen jox euh, ñoon incha allah